seetlu bi mooy bu ñu waxee sharika léegi wala sharikaat te mooy société yi wala entreprise yi lu ci baree yi dañ koy jàngat ci ay anam yu wute mën nañ koo jàngat ci anamu nu ko lislaam gisee mën nañ koo jàngat ci anamu nu ko yoon tërale mu li ñu wax droit mën nañ koo jàngat tamit ci ni ko nit ñuy sose njëkk yoon di ko nos yoon di ko tëral di ko organiser ñetteelu seetlu bi mooy képp koo xam ne yaa ngi dund rawatina ci suñu jamono ji danga gis ne sharikaat yi wala bokk am liggéey yi mi ngi wuute mi ngi sosu mi ngi juddu mi ngi am lu bare bari taxawut taxawut rawatina nag ci réew yu tugal yi nga xam ne daanaka ñoom tënk amuñ leen lu leen di tënk daanaka lépp daal loo xam ne rek dëppoo nag li xel baaxoo nangu nit ñi baax baaxoo koo jëflante ñoom jàpp nañ ne mën nañoo liggéeye noonu yooyu yëpp nag dafay wane ne kon tomb bu yaatu la bu mat a waxtaani la waaye bu mat a xoole ci ay euh, côté yu wuute la ci biir loolu moo tax bu ñuy seetlu ci ay gëstu dañuy gis ne gëstukat yu bees yi ñu tuddee ay boroom xam-xam yu bees bu ñuy gëstu euh, xeeti tomb yu mel nii dañ koy gëstoo ci euh, li ci ngir yëpp wax ngir rek bëgg xool naka la layale bu fekkente ne ab société wala ab bokk ànd liggéey dafa sosu ñu xool nan lañuy mën a fexe ba mu dëppoo ak lislaam moo xam ngir mee la ca dëppool wala ngir mee wala ngir mee en tout cas bu mu génn rek njàngaleem lislaam waaye nag ñun comme dañ ñoo tënk ci masabu imam malik ku tedd gi daf ñoo tënk tënk ci masabu imam malik ñu ci jële suñuy ballalukaayu jàmm yàlla ci ni ko masab bi déggee yaakaar naa waxtaan yi foofu rek lañ koy tënk dañu xool kon yenn ci ay bokk àndi liggéey yoo xam ne fiq nos na ko rawatina fiqul malik yi bu ko defee ñu leeral ko charte ya ca am xeet ya ca am atte ya am buñ noppee nag incha allah tëjee ci junj yennat ci ay sociétés yoo xam ne léegi xew na ak nu ko lislaam gisee bu ñu noppee daal di mujjee incha allah yenn charte yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci société ak bu mu mën a doon war nga koo sàmmante ndax mooy tax bokk a dagan mooy tax société bi tamit lislaam mën koo nangu ci gàttal bu ñu waxee société mooy lan bu ñu ko waxee rekk dafay firi ñaar yu jaxasoo yu ràbbaloo yoo xam ne kenn xàmmeewut kenn du ko xàmmee ci boo ko boo ko tasut loolu mooy al ixtilaat wal loolu lay firi léegi nag loolu mën naa amee ci anam gu baree bari ñaar mën nañ koo séq mbooloo mën nañ koo séq lii ñu bokk yit mën naa nekk ay kër mën naa nekk ay suuf mën naa nekk ak jur mën naa nekk marchandise mën naa nekk wurus wala xaalis waaye mën naa nekk lu ne léegi bokk gi fu muy jógee mën naa jóge ci luñ donn mën naa jóge ci loo xam ne dañu koo may wala ñu sarax ñu ko waaye mën naa jóge ci loo xam ne dañ cee waxtaan bu juboo loolu moo tax bu ñu demee ci mësëb imam Malik dañ naan ñoom sharika ñaari xeet la am na bu yaatu boo xam ne rek mooy loo xam ne dañ koo bokk ak nit loo bokk ak moom rek yéen a ko bokk moo xam dangeen ngeen koo bokk donn moo xam da ngeen koo bokk màng moo xam da ngeen ko mën a bokk bu dee sharika bi tax ñuy wax nag nga xam ne li koy jur mooy waxtaan ba juboo moom loolu la tuddee sharikatul aqd loolu mooy ñaar ñoo xam ne dañoo waxtaan ba juboo ngir fas yéenee liggéey bu ñu amee bénéfice bokk ñaar ñu waxtaan ba juboo ngir fas yéenee liggéey bu ñu amee bénéfice bokk noonu la ko ibnu arafa xamle noonu la ko xataab xamle ci mawhibul jalil bi mu sarawee xalil dafa wax ne société bu ñu ko waxee mooy loo xam ne day am ci diggante ñaari nit te am gi ñu am gi mi am ñoom ñoo ko ñoo ko taamu léegi jaxase seen alal wala seen doole ngir wut bénéfice euh, boobu ñuy wax nag muy charikatul aqd mooy société bi nga xam ne dañ ciy waxtaan ba juboo ci nos ko xool nu ñu ciy liggéeyee bu ñu ko waxee ci ni ko Cheikh xam xamle mooy idnun fi tasarrufi lahuma maa anfusihima mooy kenn ku ci ne ci ñaan ñi bëgg ànd liggéey da ngay digal sa moroom ni ko nañ bokk nañ ànd bokk liggéey ci alal ji wala nañ ànd bokk daan suñ doole wala nañu ànd bokk daal am anam goo xam ne dañu ciy liggéey bu ñu liggéey nag lépp loo def day mel ne maa ko def yow it lépp lu ma def day mel ne yaa ko def mooy loolu mooy lahuma maa anfusihima mooy euh, ñun ñaan ñëpp it di defandoo ñooy bokk di defandoo loolu kon loolu mooy bokk ànd liggéey mooy kenn ku ci ne da ngay jox sa morom ndigal ci alal ji ngeen séq teg ko wala ni ngeen bëggee daane doole kenn ku ci ne da ci jox sa moroom ndigal ci mu jëfe ci ci mu def ko te bu koy def it day jàpp ne yow lay defal yow it booy def dangay jàpp ne moom ngay defal loolu nag am na ay façon yu baree bari danañ ci ñëw incha allah waaye ci gàttal loolu rek mooy société kon mooy sharika mooy bokk ànd liggéey mu am solo loolu nag solo si dana feeñ ci juróomi anam xam nañ ne nit comme ni ko wolof di waxee lu kenn di man ñaar ñoo ko dàq bari na ñoo xam ne seeni naal ak seeni bëgg-bëgg la tax sottiwut mooy dañ caa wéet léegi nag société bu amee kenn ku ci ne indi sa doole indi sa alal mën naa tax yu baree bari ci yuñ bëgg réaliser mën nañ ko réaliser ñaareel bi mooy bari na ay projet yoo xam ne kenn mënu koo financé pour ñu am financement bi il faut mbooloo bokk kenn ku ci ne indi la nga am waaye joxe it na nga manee ñetteel bi mooy société saa yu amee ñi ngi ñi ngi joxalante ay expérience kenn ku ci ne yaa ngi wane sa xam-xam yaa ngi wane sa man-man loolu dafay tax euh, aw askan jëm kanam waaye dafay taxit li ñu bokk walla li nga xam ne moom lañ bëgg a euh, sottal sottal ga day yomb dana tax ñu mën a exploiter suñu richesse koom-koom bi ñu am ak tamit nit ñi ñu am lañuy ñuy tudde ay créer d'emploi bu fekkente ne créer nañu ay societé yooyu yëpp dana ci mën a sotti ci gàttal def wala créer ay société bokk ànd liggéey bokk na ci li muy indi mooy dafay tax am réew jëm kanam ndax alal yi ñu dencoon yépp day génn tege tege ci taabal ji xam-xam yépp ak man-man ñi day génn tege ci taabal ji bu ko defee nag ñu xool lan lañ ciy produire lan lañ ciy liggéey liggéey boobu dana jural ñi nga xam ne ñoo participé woon dana leen jural jural njariñ ndax bénéfice bu ca amee ca ñoom lay dellu waaye dana jural tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy benn benn yi nekk ci société bi dana leen jural njariñ ndax dana tax ñu mën a liggéey ca société yooyu waaye dana jural njariñ peuple bi yëpp wala réew mi yëpp ndax dañuy wax ne euh, benn réew wala benn mbooloo du ñu jëm kanam lu may dañoo am puissance économique dañoo am doole ci wàllu alal te doole ji nag li koy mën a indi li koy gën a mën a dooleel mooy ñu bokk ànd di liggéey kenn ku ci ne wut domaine boo xam ne ca ngay liggéeye di ko di ko jàppalee soo askan liggéey boobu am na ay xeet ci fiq yu baree bari xeet bi ci jiitu ci tënk mooy li ñu tuddee charikatul amwaal charikatul amwaal mooy lan mooy ñaari nit wala lu ko ëpp dañuy waxtaan ba juboo ne dañoo bëgg a teg alal ngir commerce ci ngir yaxantu ci loolu mooy charikatul amwaal mooy bokk goo xam ne la koo lal dëgg dëgg dëgg mooy financer projet financer ab projet nga xam ne kenn ku ci ne ci ñaar ñu ko séq wala mbooloo ñu ko séq dangay teg alal daan ne ayoo nañ ci liggéey bu ko defee nag yéen ñaar ñëppay ànd teg wala yéen mbooloo mi yëppay ànd tegandoo waaye yéen ñaar ñëpp wala yéen mbooloo mi yëpp yéen a ciy ànd di ci liggéey ak doon di sax bokku leen barab bu ngeen di liggéey léegi nag bu ngeen demee ba am bénéfice ngeen bokk bu ngeen demee ba perte amit ngeen xam ne kenn ku ci ne perte nga la nga xam ne moom nga tegoon kon loolu mooy charikatul amwaal léegi nag dafa bari ay xeet xeet bi ci jiitu te gën cee siiw te gën cee tusaaroo moom nañu tuddee charikatul mufaawada charikatul mufaawada ci gàttal mooy lan charikatul mufaawada mooy ñaar dañuy waxtaan ba juboo wala mbooloo ne dañuy créer société léegi nag ni koy créer mooy kenn ku ci ne da ngay teg alal kenn ku ci ne da ngay joxe dara bu ñu joxee dara nag dañuy bàyyi ñëpp ñi xas ñi bokk ci société bi ñi bokk ci société bi ñëpp dañ leen di bàyyi kenn ku ci ne nga xool nooy def ba société bi avancé ak noo ko mën a defee nga xam ne duñ la tënk ci dara moo xam sa moroom maa ngi teew moo xam teewut lépp loo mën a def rek ba ba entreprise bi gën a jëm kanam ba société bi gën a jëm kanam da koy def ngir liggéeyale ko euh, projet bi nga xam ne mën nañu bokk nga xam ne boo gisee ne léeg-léeg jaay ci mooy doxal liñ séq nga jaay boo gisee ne jënd moo koy doxal nga jënd boo gisee ne dem luye ji ci dara moo koy doxal nga dem luye ji ci dara boo gisee ne jël ci dara luye ko moo koy doxal nga dem def ko boo gisee ne da nga war a leble wala da nga cee war a leb loo gis ne daal boo ko defee rek société bi dana euh, jëm kanam dana avancé nga def ko loolu mooy charikatul musawada léegi nag yow loo def day mel ne sa morom mi ngi ko séqal nga ko defal moom it lu mu def rek day mel ne yow la ko defal léegi nag moom charikatul musawada boobu mooy bokk gi nga xam ne duñ tënk kenn dañu xool rek kenn ku ci ne ci ñi ko séq loo jàpp ne rek mën naa jëmale kanam liggéey bi nga def ko dafa am charte buy tax mu wér charte bu am solo charte bi li koy tënk mooy képp ku bëgg képp ku bëgg a dugg ci société boobu képp ku bëgg a bokk ci ànd bokk liggéey googu fexeel ba ñett ñeent yii na tolloo mooy lañ cay liggéey ak bénéfice ba ak bu perte amee ak alal ji ci teg yooyu force dafa war a tolloo dañ naan kenn ku ci ne la nga teg ci ab société alal ja ca joxe nam toll bénéfice ba buy ñëw lu toll noonu ngay am ci bénéfice perte buy am lu toll noonu ngay am ci perte la ca war a def it la ca war a liggéey lu toll noonu lay doon ci misaal bu fekkonte ne dangaa joxe ci capital bi lu tolloog vingt-cinq pour cent dañ naan la war ngaa liggéeyal société bi lu tolloog vingt-cinq pour cent bu ko defee bu bénéfice amee nga am ci lu tolloog 25 pour cent bu perte amee it nga perte lu tolloog 25 pour cent noonu lañ koy waxee loolu nag mooy lii tax société bu wér bu amul rek dañ koy yàq bu wér moo tax Cheikh English di ab Maliki bu siiw mus nañ koo laaj lu mel noonu dañ koo laajoon ne ko ñaari nit buñ seppoon ab liggéey tolloo luñ teg waaye nag dañoo charte ci kenn ki ne ko yow rek yaay liggéey ki ci des moom du liggéey te bu bénéfice amee ñu yéen a koy bokk dañ koy xàcc digg bi kon ñoo tolloo alal waaye kenn nay liggéey te bu bénéfice amee dañ koy bëgg a bokk cheikh English ne leen déedéet loolu du wér bépp société wala bépp entreprise boo xam ne dañ ko tabaxe noonu dañ koy yàq day yàqu ndax lan la ma ko layalee mooy ndax dafa wax ne la nga war a liggéeyal société bi dafa war a tolloog la nga joxe ca alal léegi nag lu mel noonu bu ñu ko teelee xam dañ koy yàq bu fekkente ne dañ koo yéex a xam dañ koy dab dabaatal ni ñu koy dab dabaatale mooy dañu xool ki doon liggéey ñu ne ko kaay ba mu ñëw ñu ne ko kon dangaa mel ne kuñ jàppoon surga di la liggéeyloo léegi bu ñu woowoon nit di ko liggéeyloo ñaata lañ ko war a fay bu ñu nee nangam sàngam lañ ko war a fay ñu jël xaaj ba jox ko ñu jël xaaj ba jox ko bu ko defee la des ca bénéfice ba mu bokk ko ki nga xam ne moom la seqaloon liggéey charikatul amwaal la ñuy wax mooy bokk teg ngir liggéey léegi lan la ñuy teg bu ñuy teg lan lan mooy lii dagan ñu teg ko ak lii daganut ñu bañ koo mën a teg liñ mën a teg mooy lépp loo xam ne lislaam tudde na ko alal moo tax fuqahaay maalik yi dañuy wax ne mën ngaa teg ay dinaar te seeni jamono dinaar moo xewoon mën ngaa teg dirham mooy mën ngaa teg wurus mën ngaa teg xaalis kii mën naa génne wurus kii génne wurus ñu créer entreprise kii mën naa génne xaalis kii génne xaalis ñu créer entreprise beneen anam it mën naa nekk mooy kii génne marchandise kii génne marchandise masalan mën naa nekk société boo xam ne euh, ñaan ñi ko bëgg a seq ñëpp kenn yoru ci xaalis liquide waaye boobaa dañ naan la indi li nga yor kii indi li mu yor bu ko defee ñu xayma ko kii mën naa yor ay oto kii yor ay pàkk kii mën naa yor euh, marchandise moo xam ne mën nañ cee commerce kii yor laneen boobaa tamit dagan na waaye li dëgganut mooy boole ñaar yoo xam ne sañuñ leen a boole te mooy loolu mooy kii génne wurus kii génne xaalis wala bu doon suñu jamono yi nga wax ne kii génne euro kii génne CFA ñu bëgg a créer ab société loolu nee nañ dëgganut ci masaba Imaam Malik dëgganut ñu ne leen nan moo tax ngeen ne dëgganut ñu ne bu boobaa kon day mel ni dañoo bëgg a def benn mbir bëgg ca lëmas lu ca bokkut mooy dañoo bëgg a boole li ñu tuddee asharika ak sarf dañoo bëgg a bokk ba pare bëgg a weccoo ndax ki indi euro moroom ji indi CFA moom lu mën a xew bala entreprise bee yëkkatiku bala ñoo commencé liggéey il faut ñu wecc ñu ñu def échange kon tey jii boo amoon ab moodu moodu bu nekk ci réew yi tugal bëgg laa jox moo ne boo xam ne bokkut ak sa monnaie ngeen kor yi ngeen créé ci entreprise ci mësabu imaam Maalik dëgganut kon na muy dagale mooy na ko indi wecc ko ba pare ba ñaari monnaie bokk li ñuy weccee boobaa lay soog a dagan ba nee nit nee nañ dëgganut mooy ñaari ñam ci misaal buñ bëggoon a créer ab société ñu ne ñunkat kat juruñ alal liquide waaye kii am na dugub kii am na ceeb dañ naan dëgganut mooy ñaari ñam yu wuute ñu àgg sax ci ne même bu wuute wutoon bu fekkonte ne ñaari ñam yu bokk la dëgganut masalan ñu bëgg a créer ab société kii ne man na maa joxe ñaari bërigo dugub kii ne mën na maa joxe ñaari bërigo dugub ci mësab imam malik nee nañu dëgganut loolu la muxtasar di wax naan laa bi dahabin wa bi wariqin wa bi taamayni walaw ittafaqa kii génne wurus kii génne xaalis dëgganut kii génne ñam kii génne ñam donte benn la dëgganut waa léegi lan mooy lay wi lan moo tax dëgganut li tax dëgganut layal nañ ko ay lay yu bari waaye lay wa ci gën a dëgër mooy bu ñu defee loolu dafa ñuy dugal ci li malike yi wax bayu taami xabla xabdihi ndax ñoom dañoo jàpp ne société saa yu amee day mel ne kenn ku ci ne dangaa jaay sa moroom sa genn wàllu cër dangaa jaay sa moroom sa genn wàllu cër ci misaal bu fekkoonte ne kenn ku ci ne dangaa génn ñaari bërigooy dugub day mel ne man dama laa jaay sama benn barigo nga jaay ma sa benn barigo ndax loolu mooy tax ñu mën a jàpp ne ñun ñaan ñépp ñoo ko garanti loolu mooy tax mën a jàpp ne ñaan ñépp alal ñoo ko bokk kenn ëpp ci sa moroom sañ-sañ te nag loolu bu amee bu fekkente ne kii dafa génne ñaari barigo kii génne ñaari barigo li muy indi mooy euh, te jaxasewuñ ko li muy indi mooy day mel ne kon jaay naa la sama genn wàll nga jaay ma sama genn wàll te kenn récupéré ci liñ la jaay loolu mooy bayu taami xabla xabdihi te loolu dañ koy tere ci mazhab bi am nañu ko layale ku mel ni Ibnu Mawaaz moom da koy layale ne loolu mën na indi jaxase lu bon ak lu baax waaye loolu char euh, lay la boo xam ne dëgërut am nañu koy layale ne aw ñam dañoo war a tolloo ci bu ñu leen nattee dañoo war a tolloo ci bu ñu leen xaymaa te bu dee bu dee bu dee loolu pour mu am ci mu am ci euh, bu ñu bëggee créer société yombut léegi nag bu loolu amee teg nañ ba noppi kenn ku ci ne génne na xaalis wala kenn ku ci ne génne na matériel en tout cas bu mu nekk ñaari xaalis yu bokkut bu mu ñaari ñam créé nañ société bi entreprise bi taxaw kenn ku ci ne loo sañ a def ci entreprise bi te doo ci tàggu sa moroom bokk na ci li nga sañ a def mooy coobarewu coobarewu nit ñëw bëgg dara ci entreprise bi nga wàññil ko ci dara loo doon jaayee ñaari junni ne ko mën naa la ko jaayee junni ak juróom-ñetti téeméer loolu dagan na loolu lañuy ñuy tuddee fuqaha yi loolu la ñuy tuddee al istilaaf mooy rek marketing ci suñ jamono ji ngir def marketing bëgg nit ñi miin la taamoo jënd ak yow kon bu boobaa day mel ne la ngay wàññi du lor entreprise bi du lor société bi waaye daf koy yokk dagan na it nga aale lu woyof comme ñu ñëw ab la ab sew wala ab wala bool wala yu mel noonu nga aale ko yooyu yëpp dara nekku ci nee nañ dagan na it nga def ñoom li ñu tuddee al ibdaa al ibdaa mooy bu ñu tegee alal ji ba mu tegee nga jël ci dara woo nit koo xam ne mën na la cee jëndal marchandise nga ne ko demal ma barab sàngam jëndal ma ci marchandise bu ñëwee société bi moom ko loolu dagan na nee nañ tamit dagan na alxiraat mooy liñ teg bokk ko ba pare nga woo beneen nit ne ko kaay ba mu ñëw nga ne ko jëlal lii nga jël ca dara ne ko jëlal lii nga dem liggéey ci loo am ci bénéfice ñu séddoo bu boobaa bu amee bénéfice danga koy jox xaaj bi beneen xaaj bi nga ñëw teg ko ngir société bi loolu dagan na maaliki yi nag nee na ñett yooyu balaa dagan day fekk alal ji bari ba xaj waaye bu ci xajut doo sañ a coobare woo doo sañ a def doo sañ a yónnee marchandise doo sañ def li ñuy tuddee xiraat dagan na it ci alali société bu ñu ko tegee ba pare nga dénkaane ci koo wóolu wala nga jël ci dara dénk banque waaye nee nañ loolu kañ lay dagan mooy bu fekkente ne jàpp nga ne mënoo koo deel sa bopp ndax xëy na fi nga nekk amul sécurité wala xëy na yàlla bi neen la càggante goo xam ne boo bàyyee alal ji sa loxo mën naa sànku ci say loxo boo boobaa dagan na nga dénkaane dagan na it bu ñu tegee alal ji ba pare nga créé wat ci beneen société bu ndaw wala lu xoromu la waaye dagan na ñu teg alal ne nañ def nañ créer entreprise am lu nekk ci sa loxo nga woo yeneen nit créer waat ci beneen entreprise ne leen dem leen liggéey léegi nag bu amee bénéfice ñu bokk léegi bu amee bénéfice ñoom da leen jox seen wàll geneen wàll gi nga delloo ci ko ci entreprise bu mag bi wala ci société bu mag bi loolu dagan na dagan na li ñu tuddee al iqaala mooy boo ñëwee fekk sa moroom mi jaay wala yow nga jaayoon dara ba mu yàgg gis ne daal wala ñu jaayoon la dara wala ñu jaayoon sa moroom mi dara nga gis ne baaxut wala am na lu ci sikk nga dem xàcc ko loolu dagan na ak doon di sax amoo ci ndigalul ñi nga seqal liggéey bi ndax fii dañu yaakaar ne ku def rek sa moroom nga defal moo tax boo jaayoon dara it kenn ñëw delloosi ko di ko xàcc sañ nga ko jël nee nañ sax ak donte ki nga seqal liggéey bi nanguwut sañ nga ko ndax yéen ñaar comme li ma waxoon sànq rek kenn ku ci ne da ngay mel ne ku wutu sa morom dagan na buñ créer ab société di ci liggéey nga ñëw saxalal entreprise bi wala société bi bor ñëw ne ah diw sàngam kat yoreel ngeen ko nangam boo boobaa dañ koy charte ñaari charte bor bi nga wax na ko mën a indil firnde ba noppi it ci nga bëgg ñu fay ko bor bu mu nekk koo xam ne mën nañ laa tuumaal ca moom ñu ne leen kuñ mën a tuumaal ci moom mooy kan ñu ne mooy ku mel ne mbokkam ku ko jege bu ñëwee jékki-jékki indi kayit ne sama doom wala sama baay bu wala sama nangam da ngeen koo yoreel dara nee nañ boobaa kenn du ko déglu na ndax kooku dañu jàpp ne rek da koo bëggal dara moo tax. niki noonu it koo xam ne dafa séq moom ak goro day goroom wala koo xam ne day soxnaam wala muy borom këram ñu mel nii képp ku leen bëgg a saxalal bor ci ab société ci mësab bu imaam Malik dañ naan déedéet kenn du la déglu. boobaa yow yaay dese responsabilité bi mën ngaa jaayee ci bor kenn di ñëw di jënd nga lebal ko bu ëllëgee mu fay la mën ngaa dem it jënd ci bor gis loo xam ne société bi soxla na ko nga dem jël ko bu ko defee joxe ab délai boo xam ne bu ñu bu bu bu jotee nga fay ko bu ñu tegee alal tamit ne dañuy liggéey bokk na ci li nga sañ mooy partagé wu kii nekk ci barab sàngam keneen nekk ci barab sàngam ci misaal mën nañoo teg ne dañuy liggéey dañuy commerce kii teg un million kii teg un million muy deux millions bu ko defee kenn ku ci ñen ñu jox la dara kii féete Touba kii féete Ndar wala kii féete Ndar kii féete Ndakaaru bu ko defee lu ñu am ci bénéfice bu ñëwee daa koy teg ci taabal ji bokk loolu dagan na ñu xam ne it saa yuñ bokkee teg alal ne dañuy liggéey kenn ku ci ne yaa wutu sa moroom ci lépp loolu moo tax dañ naan boo demoon jaay yow kenn ki bokk ci société bi boo jaayoon ki nga jaayoon ñëw di ko delloo si fekku la fa sañ na koo jox sa morom mam fa fekk ka nga seqal liggéey bi sañ nag koo jox waaye nag am na ñoo xam ne foofu dañ naan ci kaw bu fekkente ne kala ko jaayoon dafee nekkut te dafa sori xëy na dafa tukki tukki bu yàgg ñoom bu njëkk dañ ko daan nattale ci lu mel ne fukki fan bu fekkente ne sécurité am na bu fekkente ne euh, sécurité amut ñooy la da nga koy xaar lu tollook ñaari fan waaye nag lañ ko daan taxdiit naan ay fukki fan ak ñaari fan ak ñetti fan lu mel noonu jamono léegi mën na indi yeneen xalaat waaw heure yi mën nañ koo wàññi bis yi mën nañ koo wàññi boo bokkee nit créer entreprise wala ab société kenn ku ci ne teg teg alal ji ba mu tege est-ce que bu ngeen amee njaboot la ngeen leen di dundale ci alali société bi ngeen koy jël wala déet ci mësa bu maa Malik dañ naan waaw ci alali entreprise bi lañ ko jël wala ci alali société bi lañ ko jël ndax lan ndax dañ naan lu ci ëpp ñi nga xam ne dañuy boole seen alal ngir liggéey li ëpp ci liy am mooy seen alal ji yëpp la def ci entreprise bi wala seen alal ji yëpp lañuy def ci société bi moo tax seen dépense njaboot ci lañ koy jël waaye ci kaw charte bi wala ñaari charte yi charte bi ci jiitu mooy bu fekkente ne ñoom ñëpp amul njaboot na njaboot gi bokk ay at wala ñu toll nañ jege ay at jege ab lim kenn ku ci ne ñaari doom la am kenn ku ci ne mën nay jël ci alal ji di dépenser ay doomam kenn ku ci ne doomam ñaari at la ba ñett mën naa jël ci alal ji waaye bu fekkente ne nag doom yu tolloowuñ kii am na lu toll fukki bant kii am juróomi bant rek dañ naan ah kon nag kenn ku ci ne na dem ak sa bopp kon nañ tolloo ay at wala kii yor ay waxambaane kii yor ay parental dañ naan ah borom waxambaane yi demal ak sa bopp ndax buñ ko bàyyee bu dépensé ci alal ji mën naa jeex wala mën naa lor moroomam mi nga xam ne ay parental rek la yor bu yàlla dogalee ñu teg alal tamit ba tukki wala kenn tukki ci suñuy dépense yépp ci alali société bi lañ ko jël ci alal ji lañ ko jël moo xam li ngay lekk moo xam li ngay naan moo xam fa ngay fanaan ba ci sax sa transport lépp ci alal ji nga ko jël waaye lu ci man di am rek moo xam da ngaa bëgg a sa njaboot moo xam da bëgg a sa bopp charte bi ci ëpp solo mooy nga def ko bil abdi mooy nga defee ko ci noo xam ne ku ñëw dana fekk dana xam ne nii ngay dépenser jaadu na li ñu ciy bañ mooy ngay ngay doxale noo xam ne day nuru ak yàq ndax boobaa dañu jàpp ne da bëgg sànk sànq bi bu yooyu yëpp jàllee nag euh, nga xam ne d'accordoon nañ ci lu toll ne li ma joxe ci alal loolu lay liggéey bu bénéfice di am lu toll noonu laay am bu perte di am lu toll noonu laay perte d'accord nañ ci ba pare waaye dañoo commencé liggéey ba mu yàgg am ci koo xam ne yaramam daa neexut dafa wéradi bu boobaa nee nañ dagan na nga coobarewoo liggéeyal ko la mu waroon a liggéey wala dara ca la mu waroon a liggéey ba noppi téewut la mu waroon a am ca bénéfice lay am ba tey wala ñu commencé liggéey ba mu yàgg ñu gis ne am na ci ku bokk ci suñu entreprise bi koo xam ne daa toll ab diggante jamono daa neexut ci moom bu boobaa it dagan na euh, lam euh, nga wàccool ko la nga waroon a am ci bénéfice nga wàccool ko ci dara ci misaal 25 pour cent laa waxoon boo ko joxe woon ci alal ji 25 pour cent ngay liggéey bu bénéfice di am 25 pour cent ngay am d'accord nañ ci loolu. commencé nañoo liggéey ba mu yàgg am ci koo xam ne dafa wéradi man nga ne ko ah man kat 25 pour cent laa waroon a liggéey waaye mën na maa liggéey trente pour cent may la cinq yi teewul incha allah bu bénéfice bi ñëwee man cinq pour cent rek laa ci am nga am 25 pour cent bu ma gisoon ne daa tollu diggante man na ma ne mën naa liggéey cinq pour cent bu ñu demee ba war a séddoo bénéfice ma am 20 pour cent rek sama cinq pour cent mu bàyyee la ko loolu nee nañ dagan na. kon loolu mooy bu ñu ko tënkut bu ñu ko tënkut nga xam ne liggéey bi dañ laa bàyyi rek moo jàpp ne noonu la baaxee rek nga defee noonu léeg mën nañoo teg alal ba pare nag daa koy tënk loolu la ñu tuddee charikatul aynaan charikatul aynaan loolu la borom muxtasar di wax naan wa in ishtarata nafya l istibdaadi fa inaanun inaan mooy zimaam mooy ak nos ak làpp mooy ñu teg alal waaye nag kenn ku ci ne bala ngaa def dara dañ ci am ndigalu sa moroom day mel ni daf laa jàpp otaas doo sañu def dara te amoo ci ndigal loolu lañ tuddee sharikatul minan ci gàttal mook biñ njëkkoon wax ñoo bokk ay àtte la nga sañoon fee nga sañ fii ba tey waaye li leen teqale mooy bu dee ay naan bii wax masaahib yëpp ko ci na mu faawada biñ njëkk a wax nag moom dañ cee wute masab imam malik daganal na ko charte yooyu la ci teg ak àtte yooyu ñaareel bi mooy sharikatul mufaawada biñ njëkkoon wax moom danga nga koo bàyyee boppam bu dee bii nag moom da nga koo tënk loolu mooy société bi njëkk mooy teg alal ngir liggéey loolu moo ci aju ci gàttal am na beneen société boo xam ne bu ngeen di wër téere yi ak lu ngeen mën a wër wër wër ci masab imam Maalik rek lañ koy fekk moom la ñu tuddee charikatul jabr mooy bokk goo xam ne fors la bokk goo xam ne force la li ko waral mooy ci masab bi ñoom dañoo amuk seetlu ne lu ëpp ci commerçant yi rawatina ñi nga xam ne dañoo man seen bopp dañuy faral di jënd ay marchandises di ko dajale di ko stocké di ko denc ngir xañ ko ñi nga xam ne dañoo néew doole bu boobaa nag am na charte yoo xam ne bu dajee dañ naan commerçant bi nga xam ne moo jëndoon lu mel noonu denc ko dañ naan ko force dañ ciy boole kii nga xam ne loxoom jotewut gannaawam waaye nag day fekk mu ay charte daje moo tax ñoom bu ñu naan sharikatul jabr mooy lan mooy nit gis am marchandise moo xam ne baaxoo na cee commerce comme téléphone téléphone télé ay jaaykatu téléphone la gis téléphone boo xam ne baax marchandise moo ne baaxoo na cee mooy gis na téléphone ku koy jaay mu jënd ko waaye bi mu koy jënd am na beneen commerçant bu ndaw bu toog nii boo xam ne moom it baaxoo naa yëngu ci téléphone bi borom doole ji waxaale téléphone bi ngir jënd ko moom mii nga xam ne dafa néew doole waxut dara daa noppi rek dañ naan ko yow mii boo defee xuuf paa mooy boo jëndee téléphone yépp ba bàyyi woo xel kee nga xam ne bëggoon na ci ci ma mësa bu imam Malik dañ naan da ko ciy boole force bu ci bëggee bokk da ko ciy boole force bu ci bëggee bokk kon loolu am nay charte mooy kon commerçant bu mag bi buy jënd li muy jënd na ko jëndee ci marché bu ñu ko ko fekkoon jaayee ko ci këram kenn du ne ko boole ci kenn ndax loolu privé la ñaareel bi mooy na ko jënd ngir commerce ci bu fekkoon te da nga koo fekk mu jënd ay téléphone yoo xam ne da koo bëgg a maye wala mu jënd marchandise moo xam ne da koo bëgg ganale ay gan wala yu mel noonu kenn du ne ko da nga boole kenn ñetteel bi mooy fi mu ko jënde it mu bëgg mu bëgg mu bëgg koo commerce foofu masalan Touba la ko jënde mu bëgg mu bëgg cee defee commerce ci biir Touba ñett yooyu bu dajee moom mi nga xam ne moom lañ ci bëgg a boole it am na ay charte mooy na baaxoo commerce ci marchandise mii sa waay jënd na ci baaxoo commerce nañ ko ci xam bu fekkente ne day koo xam ne kenn xañu ko ci commerce wala ci leneen la daan yëngu bu fekkee ku jënd am marchandise am kenn du ne ko ci da nga ko ciy boole ñaareelu charte bi mooy ba mu koy jënd na teew bu fekkonte ne daa doxee soxlaam ba ñëw fekk sawaay jënd kenn du ne ko ci na ko na ko ci boole ñetteel bi mooy ba sawaay di jënd it bu mu wax na noppi bu fekkonte ne daa wax dañ naan kon défendre na boppam kenn du ko défendre léegi charte yi bu dajee nag bu charte yi yëpp dajee ku jënd xuuf pa bàyyiloo fi sa euh, keneen ki dara dañ naan ko danga ko ciy boole léegi bu lànkee nag ñu ne dañ koy tëj lu tax Euh, ulamaawul mazhab daan ne rifqan bi ahli suuq ngir ñeewante ñii ñëw ci marché bi ndax borom doole ji buñ ko bàyyee mu jënd bi yëpp ki amul doole amul dara képp ku ñëwati ci marché bi rek moom moo lay imposer prix te boobaa ñëpp a ciy lor moo tax ñu naan force ñu partager force ñu séddoo kon ñaar yooyu ci alal la aju léeg-léeg ay nit waxtaan. dëppoo ne nañ ànd liggéey waaye nag alal amu ci dañuy ànd daan doole loolu la ñuy tuddee sharikatul ab daan mooy waxtaan ba juboo ngir ànd daan doole lu ñu am bénéfice bokk loolu nag bari na loo rawat na suñ jamono ji ndax daan doole bu ñu koy wax mën naa nekk lu aju ci wàllu yaram nga xam ne sa énergie ngay joxe mën naa nekk lu aju ci wàllu xel lu aju ci ay expérience ak xam-xam muy nag xeetu société boo xam ne tusaaroo na loolu rawatina ci suñu atelier yi ñu xam ci biir mécanicien yeeg menuisier yeeg yu mel noonu da gis ñoo xam ne ñoo bokk ay man-man wala ay tailleur yeeg yu mel noonu dañ dañuy bokk ay man-man ne ay wala ñu bokk ubbi place liggéey lu ñu am ci bénéfice bokk loolu mooy ab abdaan balaa sañe wér nag day ami chart charte bi ci jiitu ci ma masab imam Maalik dañuy wax ne balañ leen koo sañ a nangul charte bi ci jiitu mooy na ngeen bokk lu ngeen di liggéey na ngeen bokk ngeen di liggéey ittihaadul amal mooy nangeen nekk ñaari tailleur masalan wala mbooloom tailleur ñaar ñuy liggéey ci pharmacie wala mbooloo ñaari médecin wala mbooloom médecin na ngeen bokk daal ci li ngeen di yëngu bu fekkee bokku leen ci lu ngeen di yëngu na nekk métier moo xam ne dañuy mottalante dañuy mottalante misaal mu gàtt léeg-léeg mën ngaa dem ci atelier boo xam ne dañuy ñaw gis ci ñetti borom mbécc am na koo xam ne lu li ñuy enregistré ak ni ñuy jëlee mesure ni ñuy natte loolu rek la xam boo ñëwee mu nattal la euh, enregistré tegal la yére bi na leen am koo xam ne mu ca machine ba rek lay toog am koo xam ne bu ñu noppee mooy tapp bi taw mooy passé gis nga ñett lañ ñoo xam ne kenn bokku ci mbécce waaye nag seen mbécce benn mu mënu cee dem bàyyi moromam nee nañ lu demee noonu mën naa dagan waaye li ñu bañ mooy nga fekk ab menuisier fële ak ak ak akub mécanicien fële ne nañ boole place bi lu ñu am bokk loolu dëgganut kon na ngeen bokk benn métier wala ñaari métier yi di di mottalante loolu mooy charte bu njëkk bi charte ñaareel bi mooy na ngeen bokk benn barab bu ngeen koy liggéeyee muy nag charte boo xam ne bari na ay wax loolu ci mu daw woon bu ñu demee dañu gis ne imaam Malik laajoon nañ ko ne ko ñuy ànd di liggéey ndax dagat na mu ne waaw bu fekkee ñoo bokk mbécce mi bokk fañ koy liggéeyee ku mel ne Cheikh Khalil ci tawdix leeral na fa lu mel noonu saxal ko dëgëral ko waaye nag gis nañ ñeneen ci mashab bi ne déedéet loolu du ci chart bokk benn place moom du charte nañ bokk mbécc rek ak donte bokkuñ benn place waaye nag ci kaw na kenn ku ci na kenn ku ci ne ci ñaan ñi ko séq wala mbooloo mi ko ci séq na kenn ku ci ne am accès ci beneen place ba ci des na ci amu yoon na xam la xew bu loolu amee rek dagan na moo tax ci muxtasar bu ngeen di xool da gis ne Cheikh Khalil wax ju mujj ji la jël wajaazat bil amali mooy bokk ànd liggéey dagan na in ittaxada aw talaazama wa tasaawaya fiihi aw taqaaraba wa xasala taawunu wa in bi makaanayni ak donte sax ci ñaari barab la